waaw parce que man fas yi si laa amoon sama yaay ak sunu waa kër ak samay jabar si fas yi lañ yaakaaroon waaw kon lañ yaakaaroon it waaw. tey fas bi mënatul liggéey lan ci xalaat te xam naa ne fas bi moom góobu mënatu liggéey. non mënatul liggéey parce que vétérinaire ñëw na xool na ko nee na kii liggéey. bokk internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla ci li ngeen ñuy toppee ci lépp luy actualité rek waaye ci li ngeen ñuy toppee ci Dakar Buzz social di wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin Malick bu yàggul dara demoon naa fee ca Pikine ginnaaw raay doon fi jël benn fas bu nu daggoon làmmiñ bi biñ ko jëlee nag mu nekkoon lu metti lool lool lool amul fu ma nit wooyewul jooy kenn ku ne woon na ma jooy ah, wax dëgg yàlla méttit ko métit lu bëri bi ci njëkk nag mooy moominu yàlla bi nga xam ne mooy fas bi nga xam ne xamul yéegul tinul ñu dagg làmmiñ bi bàyyi ko muy souffrir ba mu jëfa ñàkk ba kanam mala la waaye metti na may waxaat encore une fois nga xam ne moo jëf-jëf jooju mën nga noo rëcc waaye doo rëcc sunu borom mi nga xam ne mi ngi ak bëtam bi te dinu gis def nga lu ñaaw def nga lu kenn xalaatul ci àdduna bu la sa xol mayee nga dagg làmmiñu fas bi wan ko ginnaaw di ko gesu di dem denc saw làmmiñ moom mu nekk ak metitam ba yàlla def mu génn àdduna boo tëddee nelaw ma xam ne doo nit waaye nag li ma naan Dakar Buzz sociale mu ngi ci lu baax rek bi ko nit ñi seetaanee kilifa yi kenn ku nekk woo ma am jaamu yàlla bu ma woo buggul sax ñu wax turam ndax foo fekk ku ku doy waar rek ku safaane rek am na ku baax am jaamu yàlla bu nu woo buggul ñu wax turam daal di yëkkati lim bi toll ni li mu jëndee woon fas ba joxaat na ko lim nu joxoon tax manqué na as tuuti ndax joxoon nañu trois cent soixante mille waaye ci mbaaxu yàlla ak yonent bi ak gaa yu baax yi ak ndijaayam ji nga xam ne moom lañ taxawoon nii muy Baye Malick Guèye li ma faadal sama ngor mooy mu mukk kooku am yéene jënd fas ba pare ñun ñuy jëlaat xaalis bi di ko delloo naan ko xaalis matul mbaa ñu naan ko nangam sàngam ndax li laat waxoon ci vidéo bi rek mooy fas bi ñu ko jëndee woon trois cent soixante quinze mille mu yëkkati lim boobu jox ko ndijaayam nag di Baye Malick daal ne dinaa ko mottali ngir bàyyi laat mën a am aw fas damay njëkk ñëw ci baay laat mi nga xam ne moom lañ daggoon ah, ah, ah, làmmiñu fasam bi mu jaaxle woon lool ne woon ci daanaka guddi gu setagul ndax ndaw la doon yëngu ci wàllu bu buñ ko daggee boobu léegi mi ngi en chômage bàyyi laat ba bàyyi laat nga nuyu ñu lay seetaan nuyu naa la. maa ngi lay fay. maa ngi si maa maa si jàmm baa ngay. réewoon nga sa réeji korog ban daggee la fas wi daawaay tey réeji dafa mel ne gannaaw réeji gannaaw wuuteeg boobu. waaw. bi ma la fekkee ñu jël euh, fas bi ci moment yu métti yoo xam ne yaa ngi jaaxle xëy war a takk seet ñu dagg làmmiñ bi tegal la fa làmmiñ bi teg fa paaka bi ak tey jii nii ma la fekkaatee tey jii nga koy muñ di góorgóorlu ba suñu borom indi xéewal boo xam tey jaamu yàlla bu la jox pour nga jënd fas tey boobaak léegi noo koy dundee. waaw waale maa ngi koy dindi métti moom di xalaat fas rek métti waaw métti woon na ma torop nag waaw mais gëm ànd naa ci gëm yàlla tamit baax. waaw am nit lu am rek yàlla la daal. waaw lu daal sama koor rek damay gëm ni yàlla moo ko ñëwaatal si tuuti rek ci bi nga ñëwee ci moment bi nga ñëwee gis fas bi mu taq gafa gi taq deret nga jàpp ne dañ doon màttante fekk dama dagg làmmiñ bi moment yi nga ñëwee rek ci bi nga ñëwee lan nga yëg moment yooyu ah, moment yooyu moom méttoon na ma trop trop waaw moment yooyu moom wax dëgg yàlla amoon naa lu mu métti trop waaw waaw parce que toog naa ma ñaari fan yoo xam ne moom mënu ma lekk ndax am lu ma métti waaw mais nag parce que da nga ñëwantu fas bi waaw dama ko ñëwantul waaw dama ko ñëwantul baax moom waaw keroog nga ne ma da ngeen def tournage bi ba dem rek fas bi daal di daanu rek daal di dee. waaw da def da ngeen dem rek kay da ngeen war a ginaar yàggu dara fas daanu dee. daanu boobaak léegi nga koy dund ak naxar kooku bëggoon laa yóbbu chômage te lan la nga xalaat moom la jublu. Ah, xëy na ñu ngi naan soxor la si jublu ñu naan daaw am luñ si luñ si def mais lu si mën di am daal moom moom la moom ak yàlla daal waaw. d'accord bi vidéo bi dawee nee nga sax yow defoon nañ seen numéro am na kilifa yu bari yu la woo di métti di ko jooy ñenn sax bu la wooyee dañuy jooy. waaw ñu bari moom suñu waaye dañuy jooy moom ñu bëri fii ba Europe ak fépp ay woote di jooy moom waaw. bi loolu amee benn jaamu yàlla bu bëggul ñu tudd turam woo na la woo na ma bi ma wooyee ne ma bàyyi laat dinaa ko jëndal fas lan nga koy wax donte yàlla tax muy def bëggul ko tudd turam. yàlla koy bàyyil moom yàlla koy bàyyil. waaw parce que même sans loolu sax chaque jour dañuy déggante damay woo fu mu toll. di ma conseillé tamit si lu bëri. waaw damay conseillé si lépp daal. waaw jox na ma jënd fas mais teew tamit bàyyiwu ma damay conseillé si lépp. waaw daf la yaayoo. waaw daf ma dooma moom wax dëgg yàlla chaque jour chaque jour damay woo dem si guddi rek dañuy déggante waaw moom tamit yàllaa koy bàyyil waaw. taxawaayu dakaar Buzz parce que moment yi Dakar Buzz di ñëw ci yow jaaxle woon nga mu mel ne Dakar Buzz ñëw na ci yow mais solution la indaale. waaw ñu indi na solution moom waaw parce que bi ngeen ñoo tamit fekk na ma jaaxle trop parce que boobu fekk na ma jaaxle daal fekk na ma si kii metti waaw parce que man mi wax yow damay jugee si lu metti ñëw di góorgóor tamit ba jëndaat sama fas ñu def ko noonu waaw. yow suma frère yow tamit sàmm nga sama lépp jàpp nga si moom ma dëgg yàlla waaw mais gars yi tamit ñu bama rek ma liggéey parce que man amul luur sama yaay man amul luur sama yaay kese. man mooy góor mais chaque jour ñu ngi may jéem a fakasal chaque jour waaw mais lii du première daan naa xëy fekk sama sareet ñu si def fay lu ne ay gàllaay ak lu ne lu mu am tamit ñu fexe ba mu yàqu ma demande en chômage waaw mais nag yàlla bàyyi ma ko waat moo gëm yàlla lépp lu ñëw si man tamit maa ngi koy sant yàlla gëm ko yàlla waaw lépp lu jàll tamit yàlla day indiwaat leneen lu dàq loolu waaw. d'accord nan la bàyyi ndax daw nga te fas rek nga yaakaar. waaw si laa yor sama yaay. yor suñu kër yor sama jabar hmm. waaw. boobaag léegi sa yaay na la koy dundee sa soxna ak seen waa kër parce que sareet bi bu dawul dépasse du am. waaw sareet moom bu dawul kër ga day xaw kii moom su rek kër ga tas na mais nag sama yaay dafa nekk jàmbaar waaw te sama nijaay tamit seetaanu ma waaw moom tamit wax dëgg yàlla seetaanu ma benn yoon. bi affaire amee ba léegi chaque jour may woo lu kër ga mën na ni ba affaire amee ba léegi woowuñu moom la ñu woo te teewul da siy def li nga xamante ni moo si war. waaw ak ah. taxawaayu Dakar ci yow parce que dafa mel ne Dakar Buzz bi mu ñëw ci yow euh, metti woon na trop mais li dugg bi nga dugg Dakar Buzz réccu woo ko. non réccu ma ko moom réccu ma ko parce que neexoon ngeen def émission tamit bañ ma mais chaque jour yaa ngi may waxtaan ak man chaque boo neexoon boobu tamit bala maire woowee tamit soo neexoon nga jox ko sa numéro mais sama numéro nga dugal ñu may woo bala maire woowee tamit sama numéro nga jox maire bu woo ma déggante ak man ñu ànd nga jël sa taxi teewu tamit demoo mais da nga jël sa xaalis jox ñun dem leen ñu dem. waaw te tamit amuñu sa fay daal waaw. Baye Malick euh, kaay ñaari. yaa fi baayam tey mu metti woon lool moom a mu koy jël ndax ku yor sa fas yeewu pour dem sang ko pour xëy fekk ñu dagg làmmiñ bi teg fa paaka bi teg fa euh, làmmiñ bi dana doy waar. waaye moo ndëggam ma waxoon ko la ma ko waxoon ne la dakaar ba du la bàyyi dinaa la accompagner ba suñu borom indi xéewal suñu borom indi nay xéewal lan ngay wax jaamu yàlla bi jëf-jëf ci ne ma dinaa ko jox mu jënd fas loo koy wax. kii kay dama koy bàyyeeg Serigne Touba. ak Alaaji Malick ndax moom li mu def man mii la war man nag mënuma koo fay xanaa di ko ñaanal yàlla mu xam li mu gën a bëgg ak lu mu ragal yàlla na ko yàlla nëbb ndax lii mu def laat mii ba muy xale bu ndaw bi trois cent lañ ma ko jox lu mu nekk ci moom maa ci def maa yar ba muy magum jëm léegi ba mu am soxla yor kër yor saw fas di ci yaakaar ci ngay xëy ci ngay gont nga yow di fekk ñu daggalami ñëw waaye nag kooku nañ ko bàyyi yàlla ndax yàlla ci boppam moo ko sàkk moo sàkk fas te kii bàyyi ma la defu ko waxu ko bu ko laat defoon ko waxit na dem ca laat te bàyyi fi bàyyi ma bi waaye lu toll ni bàyyi ma nga dikk dagg la ñu tipp man de ba léegi ci fas laa ko jëkk gis te xam naa ne ba may xale bu tuuti ba léegi fas ak sarit ci laa ne ku ne ci àddina jariñ naa la ci jariñ na ma ma jariñ sama mbokk ci laay ci laa def ci laay lekk ci laay naan kon nag fas ak saret lu ko waaye def defu ko kenn mën nga ko def kii nag ke eh, Fadel yow sa bopp kenn mun laa fay ba ngay xale bu ndaw ba léegi mhm. man ak yow mhm. sa nijaay la ci man la nekkoon mhm. nu bokk nekk nu bokk dëkk eh, eh, tali bu xonq booba léegi yar ak teggin laa la xam ak sutura ak teranga lii nag jomb la ndax sa maam ji ji jur sa yaay sëriñ Touba ci loxoy Serigne Touba la nekkoon kon nag yow li jomb la da nga ko da ko da ngaa judd fekk ca kër ga li nga judd fekk ca kër ga na mu yal yal na la fi yàlla bàyyi nga yàgg ak moom ba sut sa maam jëw fan ci kàttanu njol màkk loolu daal laay ñaan lan ngay ñaanal Dakar Buzz Dakar Buzz nag bëgg mu dem ca kaw ca kanam képp kuy ratib liggéey damaa bëgg nga dem jox ko hmm. euh, Dakar Buzz hmm. ndax Dakar Buzz kat nii mu def keneen gisuma ko ci beneen ndax gannaaw yàlla ak yent bi bu ñu xamee ni fas yi génn na àddina Dakar Buzz a ko waral hmm. te dakaar Buzz ba mu ko waralee yow fadal yow la man daal dama leen di boole yaa yaag maire bi daal mm. yàlla sa borom aar leen yiir leen lu leen waaye yéen ci ci ci lu baax yàlla ngeen ci jot lu waaye yéen ci lu bon yàlla na ko fopp ci kattan bi Dakar bës bës na sa jarbaat ba bës na sama jarbaat man mii ko waroon wut tëll fas ñu wëlbati ko dimbali ma jox ma xaalis ma koy tëll fas man mii la gën a bës yow ñu ngi lay gërëm ndax ndax bi ko ginnaaw bi kee joxee njëgu fas yow yaa ko mottali ñi ngi ñaan yàlla na li nga yor yàlla na barkeel yàlla na yàlla taxawu la Euh, lii ma naan yàlla yàlla gën laa dëgal euh, soxna si maa ngi lay sant am personne man maa ngi lay ñaanal kuy baax suñu borom a la gën a baax bëggoonu tudd sa tur da ngaa jëf rek ngeen jëme yàlla yàlla na yàlla fay la yàlla na yàlla yokk la yow xam nga man xam na baylaat mi xam na yàlla mi tax ngay jëf nag yàlla na suñu borom fay ndax li ma naan yàlla kum na tafay di loo liggéey loolu waaw ma bëgg xam naa ne bàyyilaat bi yoon moom dama ragal fas bi mu fa bàyyilaat fanaan ak fas bi fas fas bi léegi ci am naa place ca gardien ba fi ñuy gardé oto yi wut ah, oto lañ koy dugal parking oto laa koy dugal léegi ah. waaw fas bi kay léegi guddi gu jot naa teg sama loxo ci moom bàyyi laat maa ngi doon wax laat sax mën nga fanaan ak fas bi sa biir néeg mais comme ko parking oto léegi ah daabal ne suñu borom mën na koo sàmm waaw ah, mën na ko sàmm moom hmm. d' accord léegi xaaral ma jox borom xaalis bi nga xam ne moom mooy borom fas bi muy muy quatre cent mille quatre cent mille la lim bi quatre cent mille bee mi ngi ko jëndee woon trois cent soixante quinze mille bii nag quatre cent mille la ndax mool la woo xam ne dinaa ci yéeg léegi ànd ak laat ñu def tour léegi ngeen xam ni fas bi léegi fasu laat la ah kuy baax yàllaa la gën a baax Dakar Buzz social waaye Dakar Buzz solution bëgg na ku feebar faju waaye ku jaaxle mu gindi la yàlla ñëpp am jàmm jërë ngeen jëf